allah ànd ak euh, conseil municipal bi nga yëgee euh, mbir mi naka nga def. waaw en tant que conseil municipal ba ma yëgee ba ma yëgee affaire bi woo nañ sapeur woo nañ police woo nañ envoyé naa le maire nekk fi envoyé ko message képp ku nekk si conseil bi muy secrétaire municipal. woo naa leen yëgal leen affaire bi ñoom yëg nañu information. am nañ jafe-jafe ci temps bi ñu teel a ñëw wala yéex am nañ jafe-jafe moom ñëpp xam nañ ne. nit tey bu fa amee jafe-jafe si ay ay yu mel nii négligence day am réew warul doxee noonu il faut ñu xool ñu xoolaat mbiru santé bi ak ñi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe yu mel nii bu ñu woowetee sapeur sapeur dafa war am gis nga dëkk bi Kër Mbaye dafa rëy rëy boo xam ne benn poste santé bu mag yu mel nii waroon nañ ko sóoraale sapeur waroon na am fii ci dëkk bi ba bu lu mel nii bu amee ñoom ñu ñu mën ñu mën ko jël yóbbu ko jéem ko sauver mais bu fekkee dañuy woo sapeur sapeur wara a jógee Tëngéej wala war a jógee Dakar mais loolu c'est trop tard loolu il faut ñu xoolaat ko te ñi dañ si dañ si ñu ngi si ñaan képp koo xam ne yàlla may na la euh, baat ci réew mi Kër Mbaye Fall dafa soxla loolu parce que lii jéggi na affaire maire maanaam soxla nañ loo xam ne sappeur dafi am hôpital am fi yàgg nañ ko kaas dëkk bu mel nii amul hôpital amul dara jafe-jafe la parce que mooy wala lii yëpp bu amee dox doo xam foo jëm boo woowee Tëngéej balaa ñoo ñëw ñëpp xam nañ am embouteillage dafay am kon dëkk bi war na am sapeur boo xam ne wala hôpital boo xam ne wala loo xam ne bu kaa yi amee dina la mën a jël en attendant mm. defal ay soins yoo xam ne dina la mën a sauver loolu ñu ngi koy ñaan bu baax chaque jour ñu ngi koy wax dëkk dafa soxla yenn yi waaw.